jërë ngeen jëf bakkan yi tëdd démb ca xoosantew ga ca Kédougou ak deret ju bari jafa tuuru l'observateur mi ngi ñuy wax li ko sooke bil yéenekaay bi dogal bu préfet bi jël jëm ci anam yi ñuy jëlee ñi war a liggéey ca mine ya loolee moo taal dëkk ba démb ci manifester yu fa moon ca la benn waaye bu ñu naan Bakary Cissokho di mag ci meeru dëkk ba ñàkkee bakkanam ak beneen waaye boo xam ne ab orpailleur la bu dëkk ci Burkina Faso bu weesoo ñaar ñooñee faatu nit yu ñàkk seen bakkan lu ëpp fukki nit yu am ay gaañu-gaañu vox populi nee lii mooy bilan bi tukkee ci ñaxtu yi amoon démb ca xoosanto ga ca sabadola ga ca saraya ga ca kédugu arrêté préfectoral bi sooke manifestation yi vox populi mi ngi ñuy wax ne annulé nañu ko ba dañuy wax it ne tey jii danañu amal ab CRD spécial ca gouvernance bu kédugu ngir seet ñuy régler problème bi problème bi journal bi nee nañu mooy askan wa yeewoo nit yu fa ñàkk seen bakkan démb libération ne ko ñaar ñu ñu ñàkk seen bakkan démb ñoom ñaar ñëpp ay orpailleur lañu kenn ki Bakary Cissokho la di mag ci meerub dëkk ba juróom fukkeet ak juróom-ñett la amoon bàyyi na ci ginnaaw benn soxna ak juróom-benni doom keneen ki ci des yéen kay bi nee nañu ab doomu Burkina Faso la bu ñu naan Abrahim Ouédraogo ñaar fukkeet ak juróom-ñaar di 27 ans moom la amoon amoon na jabar ak benn doom libération mi ubbil xët mu njëkk yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ay mbir yu yéeme te raglu ci comportement bu waa ji ñu naan papa moto papa moto mooy ndax dafa daw ñu dox dellu ci l'observateur mi ñu xamal ne Abdoulaye Samoura di kankuran bi ñu jamoon paaka mu faatu ca Tamba xaritam bi ñu ne moo ko def ñu naan ko Thierno Kanté jàpp nañu ko ñoo ngi ko jàppee Dakar ndakaaru li ko lëmbe jamono ji di coowal politique lëmbe na xët yu njëkk yéenekaay yu bari ñu xëyandol Amadou Ba mi Macky Sall tànnal waa Benno Bokk Yaakaar xamal leen ko ne candidat la noonee la ko tuddee nee na Ba mooy ki mën gàddu projet bi doxal ko ni mu waree te xaddu ca dam yaakaar mën na caa wékkee dafa war a yee yaakaar jooje lii di PSE plan Sénégal émergent mu ne kenn gënu ko koo xam mbir meneen mu mu def moom Amadou Ba te munta gaa si ne lu jara bàyyi xel la nee na mooy lu jege 8091 milliards yi mu dajale woon ci partenaires financiers yi ci jamonoy groupe consultatif bu Paris Abdoulaye Daouda Diallo journal Bës Bi Le Jour nee nañu la mu ngànkoon yàbbiwu ko moom jiital conseil économique social et environnemental gi gisee na démb ak président de la république Macky a baab ak doon ko ko sax poste premier ministre bu ñu gagné waaye loolee dafa mel ne luqewul bëtub Abdoulaye Daouda Diallo candidat beneen bu ñu rëkkale di Mahammed Boun Abdallah Dionne bés bi le jour nee nañu tey jii ci la war a gisee ak président Macky Sall waaye moom Boun Dionne yéenekaay bi nee nañu jege na lool dem àndi ji ak Aly Ngouille Ndiaye mi ñu la mandat di wax ne jaxase na carte gi salfaañi na plan yu Benno Bokk Yaakaar yi ndax yaakaar ju tas moo ko ci dugal wala ndax jalousie am ndax dafa gis boppam moom ci jëmi boppam di Aly Ngouille Ndiaye yoon yu mu jël direct ci news nee nañu bu ca yaakaare maire yi ca département bu Linguère tàkk moom Mame Boye A caisse des dépôts et consignation journal bi nee nañu nit la ko bari ay xarkanam yu wuute bu ko neexee mu doon militant discipliné bu ko neexee mu doon ab activiste pire ba muy wax ci boppam keroog ca télévision Futur Média Source A nee nañu dégg nañu ko ca waxam ja mu wax ca lu jara xel journal bi nañu moom Mame Boye nee na ni mu yaroo ak ni mu màggee moo ko def ni mu mel tey ndax moom pël la bu juddoo ci biir joolaa yi yaayam ji ko jur di ab séeréer mu màggee Kolda ca Mandangi jabaram di xaritu benn bakkanam bi mu màggal di ab catholique yooyu yëpp nag nee na moom la dajale ba tax mu mel ni mu mel tey tey ci li mu xëy mooy ci candidat yi bëgg a doon président de la république bu Sénégal présidentielle des inconnus mooy li journal bi bind boole ko nag ak photo bu Khalifa Ababacar Sall bu Amadou Ba bu Aminata Touré bu Anta Babacar Ngom boobu Idrissa Seck ak boobu Karim Wade sour soi mel ne ku naan ko dolli ci Birima Mangara ndax ministre du budget ba woon di Birima Mangara li mu fas yéene mooy ànd ak waa àndaat defaraat Sénégal doon candidat samp am dëndëm ngir suubu ci élection présidentielle yi 2024